bañ ko yégué ba légui ben kilifa noppalatul muy maire di élu di jeune di femme ñepp ñi ngi wajal pour accueillir président de la république accueil bo xamni mo tollok day waya ndax ñepp xam nañ ni président de la république suy suy déplacer wu suy jóg république yépp muy jóg mais également ñim koy ñimuy fekki ñomit ñi ngi wajal pour wan ni ko monsieur le président de la république ñëw nga sa kër ñëw nga sa dëkk ñëw nga sa gox loolu lay waa Thiès di waajal pour accueillir président de la République accueil boo xam ne mun naa ne accueil historique la loolu waa parti réew mi ñu ngi ciy dox def ay jéego di ci xar seen tànk tubéy bañ ko annoncé ba léegi muy du maire du responsable politique du responsable jeune du waa département bi du jigéen ñi du kenn noppalatul pour que président de la République su ñëwee Thiès xam ni waa Thiès

ak suñu naataango waa APR yi suñu naataango mouvance présidentielle bi yëpp ñun ñëpp ñu joxante loxo accueillir président la république accueil bi nga xam ne moom la mérité Thiès. ku xam Thiès xam ni Thiès dëkku raay la président nag mu ngi ciy def ay jéego yu am solo gis ngeen bërki dem bu mu recevoir concessionnaire canadien yi ñi nga xam ne ñoo bëgg defaraat raay bi ñëpp gis nañ ni recevoir na leen man yàlla suturaal na ma maa ngi gouvernement xam naa lim ciy wax lim ciy liggéey recevoir na leen bërki dem waxtaan ak ñoom pour ñu defaraat raay bi de Dakar.

ne ma équipe banque sur place pour ñëw ñom jël xaalis bi fay ko extemporaire ndax temporaire ñom ñoom bëggoon ñu fay leen chemin de fer comme niñ ko doon defee ce matin bi mu demee bi ma demee bureau daa ne ma suñu amé numéro compte yépp un benn clic lañu def ñu fay ñëpp seen compte seen xaalis mais xam nga ñenn ñi génn nañ aduna ñenn ñi def nañ ni motax chemin de fer lañ doon leen doon fay Abdoulaye Daouda ministre des finances ñu koy félicité ci taxawayam ci wetu président de la république yónnee na équipe pour mu ñëw fay extemporaire 1 milliard yi nga xamni mom moom lañ doon réclamer ay at lolo aussi cadeau la bu président defal wa Thiès cadeau la bu président indil wa Thiès ñuko ci sante diko ci gëreum benen bi diko sante diko gëreum ci projet bi am pour relancer le chemin de paix.